kër. nekk situation bu difficile ndax benn groupe de personnes. wanoon mën a xool ni ñuy gérer problème bi moo gën ngay sanctionner tout euh, tout un pays loolu am benn sens. toog mm. nañ koy condamné te vraiment euh, CEDEAO bëgg dugg foofu loolu tamit lu doy waar la. Mm. parce que de... mais est du corriger le fait de prendre tout le temps euh, benn pouvoir ñu di ko jël tout le temps avec les armes corriger une bon fois peut-être coup dur bi bu CEDEAO c'est pour montrer l'exemple parce que Guinée bu ñu fàtte ni ko loolu dafa am Mali loolu dafa am bon peut-être que putschistes yi nga xam ne xëy na ñu ngi koy xalaat ci yeneen i dëkk suñu xalaatee ce qui s'est passé au Niger xalaat ni peut-être CEDEAO mën na dal seen kaw ñu reculer tamit est-ce que dañu war a mën a bàyyi tout le temps rek les armées ñu war a mën a ñëw euh, foqati nguur te te téye tamit monsieur Thiaw. d'accord ma si mais da nga war a xamante ne euh, daaneel. vraiment l'intervention armée baaxu si réew te soo gisee bu ngi ko defee Libye des années plus tard ñoo gis conséquences yi mm-hmm. dëkk zone boobu dafa instable ba léegi donc loolu man d'accord ma ñu intervenir mm-hmm. te soo xoolee pour man CEDEAO instant yi dañoo xaw a mel ni marionnette parce que j'ai l'impression dafa am ku nekk si ginnaaw di leen pousser mm-hmm. na ñoom pour ñu intervenir Niger te pour man entre africain war ñoo xeex di rente seen biir rente bi moom amul benn sens war a mën a toog waxtaan. da nga d'accord ci décision beneen côté bi ne dañu war a toog waxtaan. dañu a toog waxtaan parce que africain bi tu es africain nan lay avancer loo suñu réew. nga ni coup d'état baaxul. Mhm. mais soo demee def ko ay sanctions économiques. Mhm. pare bëgg da intervenir militairement. foog naa da gën a dellu delloo réew mi. ay mhm. années si ginnaaw te loolu rek benn problème. donc dañu xool nu toogee waxtaan ak ñoom. xool ñu organiser ay élections d' accord alors léegi euh, monsieur caw Sénégal gis nga ni nga xamante ne noonu lay doxee jamono ji euh, gis nga itam ne xëy na euh, wàllum dundu wàllum nekkin metti na barki démb ñu ngi ñu ngi kaas woyofal yi ni mu demee métti loolu si góorgóorlu bi alors tey ñu ngi ci kilo soble ñetti téeméer bien que am na ay stock yu nekk soble yu nekk jamono jii ci port bi ndax mënoon nañu xaar ba ak si fii selon sa xalaat. waaw xam nga lii lu ko war a yëpp foog naa on naa pas mis les personne à la bonne place parce que tey su ñëwee si wàllum agriculture te foog naa maa ngi wax depuis des années di ko waxaat di ko waxaat. Mhm. mais la première chose qu'il faut faire en agriculture mooy fexe ñu bëtt ndox di yóbbu si si àll bi. di bëtt mhm. ndox si àll bi comme sax ñu mën a bay at bi yëpp. Mhm. parce que di béy 3 mois sur 12 war na ko mën a dépasser ne war nañu joxe tamit matériel. vraiment pour ñu xool ñu ñuy améliorer si ni mbay bi parce que toog di topp ay ginnaaw fasak nag loo war na ko dépassé. Mhm. tey soo gisee riz de la vallée ñu ne quatre-vingt pour cent ceeb bi day yàqu. dafa parce que ñu ne ñoom amuñu daan ay moissonneuses batteuses. Mhm. donc problème ki naa machine. donc loolu mu nekk lu doy waar. Mhm. soo demee si soble bi ñu ne lu bëri yàqu na parce que amuñu stockage. te pourtant yàgg naa ko fi wax. ne suñu ñëwee suñu bëttee ndox mi. jox leen engrais jox leen machine ñuy béy douze mois sur lu si topp mooy stockage distribution. parce que loo su béyee lu bëri soo amulee foo koy denc day yàqu. Mhm. distribution bi soo ko defulee euh, beneen problème lay indi. Mhm. donc ñoom ñett ñoo war a ànd du benn côté bi rek malheureusement ñoom dafa mel ne ils sont dans la réactivité dañuy réagir. Mhm. ils sont pas proactifs. tey nag loolu moo leen dal. tey seen soble bi yàqu na parce que amuñu fu ñu koy stocké. seen euh, ceeb bi yàqu na parce que amuñu ay machine bu ñu koy récolté. donc mu nekk lu doy waar te gis nañu la flambée des prix moom lu ma yàgg wax ci commerçant yi que munoo élec fu fu Sénégalais yi soxlawee nga aj sa prix. Mhm. chaque fois nga gis ko tabaski mag euh, màggal euh, gàmmu dañuy aj seen prix loolu lu mhm. foog naa état il faut mu benn solution alternative ni ñoom su dee mu rëq seen ndigg sax. Mhm. moom mu créé benn centre national d' approvisionnement yoo xam ne am stockage aliments comme ça ñun suñu jaay moom mu jaay avec les les prix homologués par l' état. mais il faut ñu trouver solution mais mu ñu toog à chaque année la. c'est-à-dire que su benn centre national d'approvisionnement mhm. on met des produits alimentaires quand les consommateurs maanaam dañ def benn centre national d'approvisionnement comme dafay PNA rek mhm. nekk ay points d'accès xam da nga fay denc ay lekk mhm. ñu suñu yokkee état ubbi yooyu ne léegi nit ñi mën a jëndee foofu avec des prix normal les prix du marché pour mën a concurrencer les pour man loolu war a nekk solution bi ñoom chaque fois produit su manqué su demee bay jeex ñu distribuer comme ça ñu mën a concurrence tuuti les commerçants comme commerçant nag ñoo mhm. pour man loolu état Dakar war a def. lu mu dem si wàllum mbéy wax naa tout le temps dama mën a bëtt ñoom ñoo am accès à l'eau parce que mhm. tant amul accès à l'eau mhm. ils dañuy béy 3 mois sur 12. il faut nga xaar mu taw. lu tax ñu am ñu am yooyu yëpp. tey tey ku mel ni monsieur Thiaw tey euh, euh, euh, jàpp ne xëy na solution bi lii la fii la ñu war a jaar mais yéen loolu lépp da ngeen koy garder pour yéen pourquoi. maa ngi ko wax fii. waaw déedéet du wax ko du wax ñu ko ñun. <laughs> wax ñu ko ñun du ah. du am importance pour man. parce que ah. wax ñu wax ko décideurs yi peut-être. toog yor sa plan dem dem dem toog ak président bi fi nekk waxtaan ko ak moom mais vous gardez ça pour vous et vous dites bu ngeen ma joxee réew mi dinaa ko def. non on garde pas ça pour nous parce que tey bu ma demee élection je pense qu'on l'a dit partout on a jéem nañ ko def à travers les moyens de communication nekk suñu disposition mm-hmm. peut-être euh, tey am visibilité am na seen ñoo xam seen micro moo seen microphone moo gën a fort que seeni basse mm-hmm. mais tey plateau télé bu ma dem jéem naa décliner sama programme bu demee sama flyers jëm naa ko wax par exemple pendant les élections législatives mhm. fu nekk damaa doon wax ne non seulement du ma jël salaire du ma jël oto du ma jël essence fépp laa ko wax ci plateau yi fépp mhm. laa ko wax mais su weesoo loolu dem ne avec la flambée des prix li noonu waroon def mais mhm. première chose diminuer les taxes deuxième chose euh, subventionné dafa xaw a doy waar troisième chose ñu surveiller doy waar ci ñu di ko jàpp doo jël salaire def il y a beaucoup de te tout le temps wax ne ne euh, politique du métier man sama liggéey am naa ko feneen maa ngi si sant yàlla su ma duggee si politique du pour ut xaalis dama ñëw pour jàppale Sénégalais yi. Mm-hmm. loolu la te foog naa ñu ma jot a xam xam ne lu ñuy lu ñuy def euh, si wàllum social. Mm-hmm. loo xam ne da nga wax si kaw. mais su duggee si politique c' est pas pour dara. Mm-hmm. politique du métier parce que soo xoolee tey soo nekkee président cinq ans dix ans la du bu weesu dix ans. mais dix ans après da ngay bàyyi dellu dans la vie privée donc tey su dee amuloo métier nooy def. da ngay toog lu si des di chômer. Mhm. tey disons tey kenn nga 39 nekk président. Mhm. nga def si 10 ans 49 ans après ngay chômer. moo tax il faut ñu am métier balaa nga dugg si politique. Mhm. dans beaucoup de pays. soo dans les pays certains pays nordiques. yi les députés. amuñu oto. ñii kenn du leen fay su ma jumlee Chine duñu fay seen député yi. parce que nu ngay liggéey bëri da ngay ay projet de loi jeex na. donc tey ñu bëgg ko def métier amul sens. Mhm. mais fu may waxee rek su ma ñëwaatee lu ma doon wax rek mooy. Mhm. Mhm. on a toujours proposé des solutions. te foog naa état moom ñu bàyyi nopp parce que am na yoo xam ne état da kaa jël appliqué ko. mooy li waxoon élection législative yi. te ñoo ñëwaat encore di wax ay propositions. on n'a jamais arrêté cette politique parce que ñu dañu politique loolu la. du xuloo du xeex mais proposer ay solution donc fu ma demee plateau ñu laaj ma solution damay solution tey won nañu Sénégal bi dem nañu Kaolack des forums de l'emploi propose nit yi li doon pour wàllum liggéey mhm. ne lii suñ ko defee incha nit yi dina am liggéey te euh, suñ ko defee mën na bokk sa si pays yu gën a développé yi parce que ëllëg dina tax ñu dafa ay télé mhm. ordinateur wala lépp nu mu xalaat ne mën na développé da nga ko defar d'accord donc suñu wër Sénégal di proposer sur le euh, programme mhm. dem si plateau di wër proposer ay programme je pense pas qu'on peut faire lu si des nag mooy c'est à vous vraiment de vendre bi ñu ci gën a séduire alors euh, nan Euh, irrégulière bi nga xamante ni jeunes de plus en plus mu ngi daw di di di vers euh, euh, l'Europe à la conquête ou bien dem di wuti une vie meilleure yow dëkk nga foofu lu yàgg xam nga la fa xew lan nga leen mën a wax en quelque sorte te ba pare bëgguma kenn ne ma dañoo dañoo jaaxle bu ma wax monsieur monsieur Thiaw bu ma wax mukk ni ma dañoo jaaxle moo tax parce que tamit man li may jaaxal tout le temps mooy jaaxle boo xamante ni kaay dee moo gën a sedd ci yow nga nga nga dund. non man nekk naa bitim réew. Mm. liggéey naa socium ak France liggéey naa socium ak États-Unis euh, géré naa fa ay koppar yu bari mm-hmm. mais damaa bàyyi loolu yëpp bi si waat donc euh, tey su ma defee loolu peut-être maa ngi conseil Sénégal yëpp def même chose parce que euh, lu ñuy def nii jëmalewul Sénégal si kalam peut di nga dimbali si waajur mais développer réew la ñuy foog ñu toog xool si ni biir ñu ñu fexe ba développer réew mi. pour man conseil wu ma kenn mu dem bitim réew. Mm. mais tamit du ma wax kenn bul dem. parce que am na ñoo xam ne tey ñoo nekk bitim réew ñoom ñoo yor ñoo ñoo yor seen kër. Mm-hmm. tey xaalis bu ëpp luy dugg Sénégal. Mm. mooy immigré yi. xaalis bu ëpp mais dem bu jaarul yoon bi tamit. damay mais xam loolu nécessité la xam nga tey soo toogee ñu ne tey koppar yu ëpp yu dugg Sénégal. Mm. immigré la donc am benn partie économique ñoo ko téye. Mm-hmm. donc nit yi ñoo ngi seen gis seen bopp si dem bi. ñoo ngi siy gis seen bopp ku nekk benn situation bu désespéré tey mu dem bitim réew. Mhm. peu importe nu mu demee mais damay koppal ba de si dimbali famille am ak waajuram kooku mënu ma ko wax ne ñibbisil parce que su ñëwaatee dem dem si extrême pauvreté tamit. yoo mhm. ne kii dafa mais ñun si wàllum politique mënoon fexe ba téye si jeunesse boobu. Mhm. parce que ñu wax ñu ne jeunesse mooy richesse tey ñu am pays bu jeune bu tek ay japon xam ne doo màgget. jeunesse boobu ñu am tey nu ñuy fexe ba exploité ko ma jox leen ay compétences. Mhm. créer les conditions pour ñoom ñu mën a créer liggéey ñoom toog fi te looloo war nekk suñu programme soo gisee ma def forum de l'emploi à Kaolack. Mhm. di wër Sénégal di leen proposer kii euh, solution. Mhm. pour ñu fexe ñu trouver ay solution ci problème boobu parce que ñàkk liggéey moo tax ñuy dem bitim réew. su demee bitim réew. si ñoom la gën a yombee ñoom liggéey même dans le noir sax. moo gën a yomb am Sénégal fi liggéey bu baax. tey soo gisee fii ñu bëri lu ñuy def am ñoo xam ne toog seen kër. ñii Jakarta nañ dool ñi ñoo ngi jaay si mbedd yi. Mm. am ñoo xam ne may bi la mais may bi trois mois sur douze heures. Mm-hmm. donc euh, situation boo xam dafa métti trop pour jeunes gis ñu seen bopp si réew mi. Mm-hmm. léegi nag vraiment on doit faire des assises. parce que problème bu sérieux la mais malheureusement kenn toogul wax si donc lii bombe à retardement la. Mm-hmm. bombe à man la. mën a dégénérer à tout moment mën a dégénérer ci gouvernement bu nekk. Mm. il faut ñu xoolaat bu baax suñu bopp bàyyi caaxaan politique yi. vraiment dugg ci problème yu sérieux mooy problème population nga jàpp ni peut-être on n'est pas allé vers l'essentiel on a trop politisé mandat bu mujj bi président Macky Sall. non on parle que de politique tey ci langum politique. Mm. Sénégal danoo dem ba fàtte lu tax ñuy politique. les priorités. danoo dem ba fàtte lu tax ñuy politique parce que danoo dem ba foog ni politique xeex la xuloo la kii baaxul man maa baax kii baaxul man maa baax. Mm. te fekk ni politique mais guerre de position day am tamit monsieur Thiaw. pour man guerre de position. Mm. foofu soo bëggee am position bu baax dama waxtaanee population bi parce que population su la joxee nopp ñoo la aj ci kaw. Mm-hmm. soo bëggee positionné wu ma nga xas fi Macky Sall ba suba mais soo waxtaanee population ñoom ñu gëm la gëm sa programme. Mm-hmm. yaa jiitu. moo tax tey suñu wax dañuy politique lu tax ñu dugg politique pour bokk ci gestion réew mi mhm. wala nekk mhm. loo tax ñuy politique mhm. ñu pour ñoo rek ci seetaan dañoo ñëw pour bokk jiite réew mi bokk jiite réew mi. léegi ñun nag ñu ne suñu bëggee bokk jiite réew mi. il ñu waxtaan population bi. proposer leen boo xam ne moo gën ci programme comme ça ñoom ñu ñu jàppale ñu voté moo tax ñu politique politique boobu donc ñun politique positive nañ def. mais politique négative bi des fois du ñàkk ñu wax ko. mais bëgguñu si euh, focaliser trop. Mm-hmm. voilà. bu ñu focaliser trop euh, euh, ci politique yenn saa yi nag dañuy naan mooy gën li tax ñu naan mooy gën monsieur Thiaw mooy mooy tax nga dem fa nga bëgg a yegg pour mën a gérer sa programme ni nga ko bëggee. non politique négative bi lu tax instant mu toll moo gën. parce que ci mm. dañoo mer. seen xool dafa jug. Mm. seen xol dafa jug seen xel te léegi nag nit su tàngee xool day bëgg ko koy défendre. xolam su tàngee daa bëgg a wax mm. Mm. nit su tàngee dafa bëgg ku koy défendre mm. te nit yi seen xol dafa tàng dafa tàng jëm ci opposition bi wala parce soo toogee ngay daan sa doolee matin midi soir nga gis ki ñëw dugg di sàcc ay milliards kenn ko wax dara impunité total da lay metti gis na fi fonds covid yi ñoo ngi ciy wax mais c'est en cours fonds force covid yi moom c'est en cours Prodac Prodac moom borom Prodac moom mbaadu danga koy takkal da lay porter plainte ah. Prodac. c'est-à-dire que Sénégal <laughs> dafa mel ne kenn ko laal nee na moom laalul dara dafa set wecc. loolu yëpp am Sénégal dañuy gis politiciens yi di enrichir. Mm. alors que ñoom ñoo ngi daan seen doole mu ñu fexe ba am dara. dañuy gis politiciens def lu ñaaw kenn du leen tëj ñoo affaire bu tuuti ñu sonal leen seen xol tàng léegi danoo dem ba instant foog nañu. yaa mais pays droit la ñu nekk monsieur Thiaw ndax ku deful dara am nañ sañ-sañ dugal la ci kaso bi tamit. non nekkuñu pays de man pays nekkuñu pays nga wax loolu. la. maa ko wax pays de droit day fekk. Ah. pays boobu ñëpp toole tolloo personne n'est au-dessus de la loi te c'est pas le cas Sénégal te dafa am lu ñu créer immunité am ñoo xam am immunité kenn yondu leen laal ñi yondu laal. Hmm. donc mu wax pays de droit nekk am ñoo xam seen situation fu ñu toll tamit du leen laal. Hmm. yoon dafa mel ne Sénégal nit normal yi ak nit nool ñi lay dal mais yenn nit yi du leen laal loolu ñëpp xam na ko. Sénégal ku ma am ndey ku ma amul ndey. loolu moo fi am moo fi am moo tax tamit nit yi soo gisee ñu wax injustice injustice loo ko waral. Mm-hmm. jàpp nga ci bokk nga ci ñi ñi jàpp ni xëy na séparation de pouvoir dafa war ak taxaw dëggantaan. séparation de pouvoir su waree taxaw foog naa il faut ñu changer nu ñuy defee élection parce que élection législative tey soo amee liste national rek indi na problème. Mm-hmm. raw gàddu bi tamit indi na problème. Mm-hmm. je pense que su ma def lépp de façon proportionnelle c'est-à-dire que on élimine la liste départementale yi ñu ne ko de façon proportionnelle. Mhm. foog naa dina régler problème bi. Mhm. parce que ku nekk loo am si pourcentage population bi la nga am si pourcentage député mais tey ma nga am benn pourcentage bi si population bi te doo ko am si député parce que raw gàddu bee ko yàq. Mhm. donc on n'a pas un système démocratique. boo xam ne vraiment di refléter nit yu ñu bëgg. et c'est vraiment dommage moo gis tamit loolu tax amul séparation des pouvoirs. voilà waaye su wàllum justice nag bon mun ma si wax trop mais immunité parlementaire da nga ko war a dindi. pourquoi ah pourquoi mais lu tax immunité parlementaire mooy yow mm-hmm. ndax sa poste su defee yenn yi mm-hmm. yoon du la laal mais su su mais dañ koy dindi mais su jaree dindi flagrant délit yenn saa yi bu jaree dindi ñu dindi ko mooy mm-hmm. yow nga def ba yow nga gën ma du gënante de monsieur Thiaw parce que yu bëri yoon mënu la laal lu tax loolu c'est-à-dire soo demee États-Unis même un président on le juge waxatuma un simple député pour man député na nga war a gën a teg si ay conditions parce que moom dafa war a montrer l' exemple. Mm. parce que non seulement nekkatoo une simple personne da nga am ñu ngi représenté donc da nga laa mm. mais su dee yow moom yow ngeen nekk foofu euh, def lu la neex te mm. yoon du dal sa kaw. wala balaa muy dal sa kaw vraiment bu bëri coow. Mm-hmm. comme euh, affaire phobie yi wala ku dóor euh, keneen ku dóor neex nga wax. Mm-hmm. soo neex nga saag yoon du dal sa kaw te une personne normalement su ko waxee yoon dal sa kawam loolu amul sens. député boobu su waxee lu bon yoon dafa dal si yoon dafa dal si kawam. parce que moom da nga ko teg standard bu gën a koy parce que ñu muy représenté mais population bi a loolu yoon la loi na nekk au-dessus de kii loi. Mm. malheureusement c' pas le cas Sénégal il faut ñu xoolaat seen bopp bu baax xoolaat ñu defalee politique. Mm. voilà donc euh, on n'a pas une vraie démocratie pour man on n'a pas une justice parce que vraiment on a deux. deux niveaux. man su ma la déggee dans sa généralité ça veut dire que tout le système est à revoir. bien sûr le système est à revoir moo tax da nga proposé suñu euh, programme ne nii il faut faire la réforme des institutions. Mm. il faut faire la réforme des institutions. IGE da ko amee agent dans tous les ministères di vérifier seen compte au jour le jour. Mm. même créer su double signature. te d'accord naa sax am na ko wax ne ñoom ñuy tourner sax loolu solution la. Mm. les députés pour man ils doivent pas être payés wala ñu par session. te fay boo xam ne c'est euh, c'est un pourcentage par rapport au euh, au salaire moyen des Sénégalais. Mmh. parce que boobaa day tax ñoom ñu pousse ne salaire Sénégal su yokk ñoom seen bas yokku mais c'est pas quelque chose qu'on négocie derrière les portes. maanaam de présence parce que comme doo liggéey 40 heures. lu tax ñu jox salaire. su ma jëlee jumulee une personne normale travaille 173 heures par par mois. pour ñu fay ko salaire am. fii yow ma da ngay nga liggéey huit heures par mois des fois doo liggéey sa mois ñu fay la salaire. dafa mel ni woon député moo dàq si liggéey yëpp. te loolu xaalisu kan la xaalisu sénégalais lambda bi xam ne moom dafa sonn di liggéey ñu dagg euh, euh, impôt si moom wala taxe wala duty di ko fay ñooñu. Mm-hmm. loolu du yoon. vraiment il faut ñu xoolaat ñu utiliser xaalisu réew mi. ba façon boo xam ne très économique euh, comme yàq-yàq du am. d'accord système bi nga wax mais bilan président Macky Sall quand même s'il y des choses à fustiger am na ci yoo xamante ne xëy na gis nga ni c'est une avancée. non dañ si d'accord xam nga loolu ku ko waxul. da ngaa soxla rek xam na ne Macky Sall liggéey na dara si infrastructure. tey soo demee Tamba. Mm. gis nañ yoon bi ni mu mel gis nañ yoonu ngi gis yoon yi macha allah ñoo ngi gis gis nañu yenn hôpitaux yi. Mhm. donc loolu da nga koy war rek di ko féliciter si loolu waaw école yi bon xam nga peut-être dew ma si école yu bëri mais macha allah def mhm. Mhm. Euh, na université Amadou da nga koy féliciter si loolu donc infrastructure am na lu mu def mais sur les institutions dina xool ne tey vraiment institutions tey ñu beaucoup de scandales dans les institutions yi il beaucoup de bugguma sax yenn mooy mais doy a waar daal mm. institution yi mm. moof dik tamit day wàññi le nombre de ministres on a vu que le nombre de ministres dafa yokk bu baax a baax a baax donc gestion de l'état la gestion administrative de l'état mm. su doon notee zéro sur laa ko jox gestion administrative. su ma gestion administrative mooy interne quoi su may wax mooy c'est-à-dire que le nombre de députés euh, le nombre de ministres euh, xaalis bu ñuy dépensé pour assemblée nationale xaalis bu ñuy dépensé pour ministère yi. Mhm. xaalis bu ñuy dépensé pour agence yi. scandale yi nekk si biir te bi fa nekk mooy OFNAC les dossiers d'OFNAC yooyu yëpp. Mhm. gestion zéro sur vingt laa ko jox. su dee wàllum liggéey zéro sur vingt laa ko jox su dee nag euh, côté euh, infrastructure mën naa jox huit sur <laughs> infrastructure daal nga gën a mën a jox yeneen. <laughs> monsieur Thiaw nan ngay def yow wala boo lan nga xalaat ne xëteet peut-être moom moo mën a corriger li nga xamante ni moom mooy ces failles ba mu waroon a mën a nekk gouvernance boo xamante ni sénégalais yi même su fekkente ni deux mandats la war a toog dem ñun du lu doyal ci moom ba dañ koy wax ne ko yaa fi nekkaat da nga war a toogaat. par exemple c'est que foog naa benn instant dafa dem trop ci clientélisme politique. Hmm. gis na ay grands électeurs mu soxla seen. Euh, électorat mu bàyyi leen impunité ñoom ñu def lu leen neex joxe ay postes yu mm. vraiment foog naa loolu xaw yàq politique am mais su ñoon vraiment les personnes nécessaires jël leen. Mm. liggéey ak ñoom bañ a xool beneen mandat euh, ku def dara mu rëq sa ndigg tëj la foog naa tey dina bëgg a bàyyi sa nga ne ko noo toogaatal mais malheureusement nag i l'a pas fait mais beneen problème ba tamit bu mu am. Mm. mooy la euh, la jeunesse pas la jeunesse les Sénégalais en général. Mm-hmm. parce que du xale yi rek ko amul liggéey de xale du ko amul liggéey de mag ñi ñu liggéey jigéen ñi amuñu liggéey <laughs> dëkk bi kenn amul liggéey. Hmm. kenn amul liggéey. mais yow moom da ñoo da ñoo da ñoo faral nag ci côté yu bari. kan ñun jigéen ñi. mais jigéen am nañu place bu mag ci sa programme. jigéen ñi ñoo dafa réew mi Sénégal suñu bëggee développé foog ñu jaar si jigéen ñi depuis indépendance on essaie les les hommes ça marche pas. Hmm. les femmes nag il faut ñu ànd ak ñoom liggéey ak ñoom. ils ont essayé nu mu tuddati le président Abdoulaye Wade avec euh, euh, premier ministre bi fi nekkoon mu nekk euh, jigéen bu njëkk bu ñu def premier ministre on a vu euh, jigéen yi nga xam ne def nañ leen ay maire jigéen yi nga xamante ni police euh, kii nañu police nekk nañ ay haut gradé ci armée beeg ci police bi ay jigéen ñoo xamante ni tamit Mimi Touré par exemple ah peut-être assemblée nationale rek lanu lanu lanu gisul woon peut-être jigéen pourtant on a eu des des places yu nga xamante ni war na noonu war a mën a dox ci développement mais ça a toujours un couac il toujours un couac. non affaire bi du affaire de poste. Mm. pour man du affaire de poste. Mm. lu mooy le privé su ma wax privé mooy lépp lu bokk état. parce que j'ai l'impression que Sénégal suñu wax privé rek moo ñu nekk Dakar di liggéey si bureau. te soo xoolee boulangerie bi sa privé la. Mm. donc lépp lu nekk privé foofu la état war a fexe jigéen ñi dooleel foofu. malheureusement ne privé bi nag jàppale ñu jigéen ñi foofu si la nekk fu may jàppale mooy structurer leen jox leen ay euh, financement mais su ma wax financement nag c'est pas comme ñu ngi koy defee rek may leen xaalis c'est yow gis nga benn jigéen tey boo xam ne yor benn usine bu ndaw. Mhm. boo xam ne day am na décortiqueuse am di liggéey. Mhm. kooku fexeel nga yokk production am jàppale ko mu ubbi a ñaar wala ñetti décortiqueuse di ko ne di liggéey. Mhm. man foofu laay waxee c'est vrai fekkal kenn koo xam ne am na dara nga jàppale ko mm-hmm. wala kenn koo xam ne am na idée bi mm-hmm. ngeen xool lu ngeen àndee ngeen liggéey s'il le faut sax mun nag ngeen dugg si actionnariat bi créer benn fonds benn si mm-hmm. loolu pour man loolooy kii bi mais pas joxe xaalis état da si dugal euh, bokk si gestion bi voilà jot na tey Sénégal am benn fonds d'investissement mais malheureusement nag euh, su ma amoon investissement boo xam ne état béy ko moom. d' accord que nous propose MPR wala que nous propose Hamidou Thiaw ci programme un développement durable. développement durable nag boo ko déggee du du du ca du mbay rek ak càmm développement durable jëm na ci ñun nit yi nan la ñu war a dundante suñu biir développement durable bokk na ci jàmm xam nga yaa yaa ko wax nit yi Sénégal jamono jii seen xol dafa tàng dañu mer. Mhm. xëy na mer bi mer bi mer bi ci homme politique yi la mais xëy na mer bi mer bi mer bi aussi si mal vivre lañu lañu lañu nekk euh, mooy dund gu cher gi. xam nga su nekkente ne da nga war a tey ji jël oto te amuloo paas nga war a ñibbi sa kii li la dese tuuti mënoo ko dug jël ci terre bi li la dese tuuti da nga bëgg dem yóbbul ko sa njaboot pour lu ñu reeree et cetera et cetera loolu lépp mal vivre yi lañ ko mën a tuddee te peut-être ba léegi euh, nit yi am na ñoo xamante ni dañ koy dund di jugee dë yeneen dëkk di ñëw ba Ndakaaru tous les jours mais lu ñu la wàññil wàññil wàññil tamit sa xaalis ñu ngi dem ci loo xam ni xëy na boo ci góorgóorloo am ci 1000 francs par jour ci ngay yaakaar peut-être pour dépense mhm. ci lan la ñu MPR mën a proposer lan la ñu MPR mën a vendre comme rêve pour que ñun sénégalais yi ñu ne ah wax dëgg yàlla nag monsieur caw mii war nañ ko war a mën a wóolu jox ko suñu réew bi wax sax damay jaay rêve mm. mais lu gën a balaa ñu wax sa loolu yépp mm. mooy euh, environnement bi parce que tey feebar yu bëri ñuy am environnement bi ñu koy jox te nit su wéerulee mënoo liggéey mm-hmm. donc foofu la ma njëkk a commencé si parce que tey soo xoolee été bi jot na mm-hmm. nit yu bëri ñoo ngi dem plage. Mhm. te pourtant ñu ne suñu plage yi à Dakar. Mhm. suñu pollution si douze fois la norme européenne. waaw Sénégal moom bokkoon na ci ligne rouge en ce qui concerne pollution ci àdduna woon donc euh, suñu doom ñoo ngi dem si géej di feju mm. di di di feexlu mm. te ñoo ngi fi jël ay jàngoor di fa feebar te xale yu bëri dañoo am pneumonie ndax polition bi ndax euh, oto yi mm-hmm. gasoil bi baaxul boole si oto yi dañoo yàgg nga boole si loolu insalubrité fosse yi di génn fii yooyu yëpp il faut ñu xool liggéey si loolu parce que dañ koy fàtte. si le faut assainissement quoi. benn une de nettoyage sensibiliser taximaan yi ne bàyyi leen di naan café lu mbuus ndox di sànni si mbedd bi. monsieur Thiaw nag loolu nag jógee na Sénégal nag parce que loolu tey ñooy boucher Sénégal léegi dañoo set. loolooy boucher xanaa gisoo gisoo liggéey UCG nag biir UCG moo ngi nettoyé mais liggéeyam doon mais soo gisee UCG chaque jour mu liggéey chaque jour mu tilemaat donc man taximaan yi laa waxal ne nanu bàyyi di naan café ak mbuusu ndox di sànni si mbedd bi mm. loolu baaxul si salter de woon lu bokk te day boucher canalisation yi mm-hmm. loolu benn la ku dee ku nekk su dee am na ku mën a jël oto yu baax nañ jël oto yu baax ni nag état nag nanu xool qualité gasoil bi dugg ak essence bi mm-hmm. géej ji nañu fexe nettoyé ko loolu côté environnement la côté santé foog naa ñu bëri ñoo ngi jooy. Mm. ne dafa cher. a am na avancé nag tey gis nga reportage du a tey soo demee Touba am na. soo mm-hmm. demee Café am na hôpital ñu ngi gis mm-hmm. hôpitaux yi. Mm-hmm. mais fu may waxee rek mooy bu ñu fàtte ñi nekk si biir. dans les villages postes de santé ñoom. parce que dem si village ñu leen ñetti ay histoire doy waar ne am na ñoo xam ne dañuy boot malaan di jéggi dex. pour yóbbu ko feju loolu am na Sénégal loolu war na fee jógee. ñooñu bu leen mooy euh, dund bu cher beeg yooyu yëpp c'est vrai que euh, am na loo xam ne état moo ko indi parce que taxe Sénégal dafa saf-sap mm-hmm. te ku importé soo wàccee douane nga xamee ne Sénégal su gën a cher sal même si la bokk donc état mën na ko wàññil douane li muy dugal Sénégal moo ëpp daanaka moo des waaw mais nag nanu xool parce que euh, nanu wàññi douane bi parce que mm-hmm. loo xam ne da nga lekk wàññi taxe yi quoi waaw loo xam ne da nga koy lekk les produits de première nécessité mm-hmm. loo xam ne tey dañ par exemple ay sobleek ay ceeb ak yooyu war na mën a dindi loolu tax lan moo tax tey ba d'accord ak ci les sénégalais wala certains candidats yi jàpp ne xëy na loolu sax dafa war a dakk parce que nous pouvons vivre de ce que nous cultivons. non d'accord naa. Mm. mais loolu li situation en attendant en attendant loolu di am parce que mënoo yeew rek suba lépp di réglé. Mm. d'autant plus que Sénégal dëkk boo xam ne 3 mois ngay may si at bi 3 mois mënoo bay 3 mois ba nga dundal dëkk nit yi 12 mois. Mm-hmm. comme loolu réglé gunu problème boobu noonu xool instant du fi am. ñu xool lu koy allégé ba Sénégalais mën see dund normalement. Mm-hmm. en même temps nag taxul di ngay liggéey pour am autosuffisance alimentaire. Mm-hmm. parce que bari noonu suuf mais problème mooy irrigation noonu amul ndox noonu amul. Mm-hmm. te tamit beneen problème bu nu am mooy stockage yaa ngi koy dégg tey. machine yi tamit dégg nga ko stockage moo tax soble bi di yàqu machine yi moo tax tey euh, ceeb bi di yàqu. donc loolu yooyu fu ñu xook liggéey ko te loolu processus boo xam ne yombul mais le temps ñu koy def dañu yombal dund bi en attendant. subventionné. bàyyi yenn yàq yi fay nit yi añ reer ndékki parce que nit tey su bëggee lekk euh, liggéey il faut mu ah mu nekk ba en bonne santé. Mm-hmm. mu añ lekk ba suur. Mm-hmm. ñaar su manqué rek day metti mm-hmm. léegi nag la population euh, qu'on a en ce moment nanu fexe tey jàppale leen parce que doonoo nekk Sénégal mais doonoo nekk sous colonisation économique. parce que tey dëkk bi moomuñu ko tey lu ëpp soo xoolee Sénégal étranger ñoo ko moom tey soo demee or bi. étranger ñoo koy euh, euh, kii exploité. Mhm. c'est les chinois c'est mhm. les australiens. nga ñëw dem si euh, tout ce secteur secondaire. ci mhm. gis fa libanais yu bëri gis fa ay quelques turcs chinois sa dugg na si léegi. te nga ñëw secteur tertiaire. foog naa presque français yi la. soo demee tey si banque yi. soo demee tey station service yi soo demee si jën réseau de distribution alimentaire. yëpp français ñoo ko moom. léegi ay euh, SGBS BICIS CBAO. Mm-hmm. Euh, Orange Free sooy woote tey Orange Free la. nga dem euh, banque yi foo muntu dem daal français dama war a fexe nag créer ay champions nationaux sénégalais yi jiite dans tous les toutes les industries nekk numéro un mm-hmm. au moins tey su dee nii tey am na benn croissance de temps nga xam ne au moins société sénégalaise ñoo ko porté mm-hmm. mais tey dañuy croissance de temps ñooy sept huit neuf dix pour cent te tey la dëkk bi di gën a ndóol parce que lu porté croissance yooyu muy société yoo xam ne étranger ñoo koy moom. Mm-hmm. te tey su ma waxee état dax si seen société enregistré au Sénégal. même mm-hmm. si c'est enregistré au Sénégal. Mm-hmm. ñu ko moom dina ay sénégalais. kër bi seen dëkk. tey dëkk bi soo xoolee libanais yi ak français ñoo moom dëkk bi. bari na ci non dëkk bi ñoom ñaar ñoo ko moom. bari na ci way donc lu may wax nag mooy nañu fexe récupérer suñu dëkk jox ko Sénégal yi. tey l' argent public du Sénégalais mooy marché xaalis boo xam ne sénégalais yi ñoo ko joxe. muy dem si marché public yi. wala muy dem si société état yi mais ñooñu waruñu dem si étranger yi da nga koo jox sénégalais yi te man d'accord ma tey ñu wax Air Sénégal tubaab da koy jiite wala euh, AIBD tubaab da koy jiite peut-être dindi nañ ko mais amoon na fi benn instant. Mm-hmm. loolu du yoon. su weesoo loolu nag man ko ñu fi nekk la jeunesse qui est ñoo ñu fexe jàppale leen. cest mm-hmm. leen ñu dem wuti formation. Mm-hmm. chambre est-ce que jàppaloo ni nu ñu koy waxee ñiy demande ñoo ëpp li fi nekk. si wàllum jeune. parce que on a une population relativement jeune nañ ko wax. te ba léegi chaque jour nga gis nit yi dañuy juddu di am ay doom tout le temps popula maanaam. dañuy dañuy grandir voilà la demande est supérieure à l'offre la demande est d'accord mais loolu loolu loolu paare ko est-ce que du ubbi ay centre de formation kese la est-ce que paare ko mooy fexe ba ñëpp jàng est-ce que paare ko mooy fexe ba ñëpp dem ci mbay mi est-ce que paare ko mooy fexe ba ñëpp tukki. c'est un c'est-à-dire que quand la demande est supérieure à l'offre mm. c'est très simple à euh, régler c'est-à-dire que ñëpp waruñu nekk ay demandeurs c'est-à-dire que yow peut-être mën nga ñëw pare liggéey amul nga créer liggéey mm-hmm. mën naa di exemple ndaw am na kenn kuy liggéey ak man damay jàng am master 2 en comptabilité mm-hmm. ut liggéey amul liggéey mais lu ñuy wax rek fépp fu am ay problème rek am na opportunité mu gis ne Sénégal am na renteur mm-hmm. bëri na ay guichet da ngay dem fay euh, caisse sécurité sociale dem fay IPRES dañ fay impôt sur les sociétés mu ne léegi comme dafa bëri ay fu ngay remplir di fay. Mhm. mu ne léegi day dem seet sociétés yi ne may fay trente mille francs ma remplir leen tous les documents dem fay leen les jeunes mu commence ko def ak man di ko def ñeneen ba tey da am na si mat quarante sociétés mu si am lu mat un million deux cent loolu lépp moom moo koy dem doxi. moo koy doxi donc soo xoolee somme trente mille francs bëriwul si benn société. Mhm. parce que man su ma noonu la jël employé ba laasi ak ma jël kii def liggéey boobu mhm. tey kooku di si liggéey ba si embauché yeneen nit fu may waxee mooy c'est pas parce que am loo liggéey am loo liggéey da ngay baisser les bras mhm. su dee am loo liggéey mën nga créer liggéey te dëkk bu am problème am na opportunité parce que problème bu am yow mën nga trouver solution jaay ko nit yi mhm. di si dund donc foofu laa waxee tout le temps Sénégal ni war ñoo découragé tout le temps dëkk boo xam ne tey bëri na opportunité mais yow yaa war a bi saisir ko euh, am ak créer si liggéey ab di si dund. Mhm. mais c' pas parce que tey aw ma liggéey damay baisser le bras c' à l' de créer le travail mhm. c' moom moo def mooy créer des conditions pour que mhm. yi mën a fleurir. c' est à que tey wàññi taxes yeeg impôts yi parce que très cher tey. ku commencé ñu da ngay fay minimum forfaitaire de. du chiffre d'affaires loolu c'est un peu cher si koo xam ne yaa liggéey tey suñu ñëwee ne da ngaa defee ren fii dem fay a yëpp suñ ko wàññee pour ñuy commencer par exemple ñu ne commencement ba cinquième année yëpp doo ko fay. pour mhm. dina tax mu mën a départ. et loolu état moo teg condition yi. Mhm. fexe tamit embouteillage ba ñu am mais <laughs> jàpp nañu ak les infrastructures yi fi président def euh, BRT bi et cetera point yi nga xamante ne ngi fa yëpp jàpp nañu dina désengorger un tout petit Dakar bi am na lu mu wàññi. Hmm. BRT bi on peut pas encore juger parce que commencé gul mais pendant la construction mais am ngeen jàpp ne yaaxin ngeen peut ni dina am lu bëri lu mu changé am nañu si yaakaar mais mënuñu juger parce que instant dafa nekk construction bon sonn nañu pendant la construction ñoom ñu hmm. muñ di xaar nag d' accord <laughs> euh, monsieur Ba lan ngay peut-être euh, jeexale euh, mosal ñu ci as tuuti rek ci peut-être quelques propositions yoo ñu mën a def parce que jox nga ñu ci nag un tout petit ci sa programme mais par exemple immigration irrégulière bi am na loo ñu ci wax tuuti tuuti mais dans l'immédiat qu'est-ce qu'on peut faire ci en une minute dans l'immédiat qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour que mbir mi taxaw parce que ba léegi mi ngi mi ngi mi ngi te yi capital humain bi nga xamante yoroon nañu ko ñu ngi dem c'est la jeunesse quand même. Mm-hmm. c'est vrai que comme ni koy waxee temps rek si ni richesse numéro un du or beeg jamono bi c'est nit yi la. Mm. les ressources humaines malheureusement nag koy perte. te suñ ko bañee perte il faut ñu utal leen liggéey donc le problème des Sénégalais que ce soit la vie chère wala tout de moyens ñàkk liggéey buy fay salaire yu baax la mm. nañu fexewaat nangu dëkk bi si libanais ak français jël ko jox jox ko Sénégalais yi mm-hmm. ñu fexe si jeunes yi ñu former leen jox leen financement accompagner ñu mën a dem mm-hmm. te lii nag pour mu ba ñaan ñu dal nañu fexe si ni xa doom yi ñu teel leen former former leen sur les métiers d'avenir waxuma ay histoire géographie mais la science mm-hmm. jàpp leen si loolu pour ñu mën a euh, créer Sénégal boo xam ne moo gën lu fi fekk. Mhm. parce que suñuy politique du pour yow du pour man pour suñu doom yi la man na fi bàyyi lu fi gën. Mhm. nañ bàyyi lu gën pour suñu doom fi Sénégal boo xam ne képp ku fi nekk. Mhm. ñoo ne ah ñun daal lan laay sas ku nekk. ku nekk na liggéey pour sa doom. na pour sa doom. fàtte sa bopp. fàtte jaww mi na liggéey pour sa doom. liggéey pour sa njaboot c'est important looy tàggoowee monsieur Thiaw. di sant ñëpp di gërëm mm-hmm. ñëpp di remercier waa Kaffrine mm-hmm. waa Tamba waa Kolda mm-hmm. ak euh, waa Kaolack si liggéey bu ñuy def bu am solo si parti bi élargir ko ba Thiès nag yow itam Thiès demaguñ fa mais dañ fa waaj a dem taay mais nag Thiès sama dëkk boobu nag ah merci bu baax a baax sama dëkk boobu nag monsieur Thiaw foog nga dem fa nag waaw ah, mais dégg nañ leen dégg nañ seen problème mm. te incha allah dinañ leen proposer solution par rapport à ça d'accord jërëjëf merci beaucoup monsieur Hamidou Thiaw président parti bi di MPR mesdames messieurs à vous je vous remercie de nous avoir suivis alors je vous retrouve à 21h pour la grande édition du soir euh, ki nga xamante ne mooy sama lakkal bi mooy ñëw léegi muy Pape Maguette Ba defal leen xibaar yi ci kàllaamay euh, Euh, euh, réew mi 21h je vous retrouve alors Leral Xibaar revient demain pour un autre numéro d'ici là vous savez ce que vous devez faire répondez-le bien autour de vous bonsoir